ak njiiti parti ñu ne nanguwuñ ko loolu doo ko gis si tubaab oh, am nañ bu fekkee yi tax ñu bañ a nangu euh, élection bi hmm. am nañu right to euh, ko ne nanguwuñ ñoom xëy na am na fu ñu wér ñoom ne nañ am nañ ay évidence yi ñuy wax lool am nañ ay évidence évidence bi ñun gisuñ ko ñoom luñ génnee ah, kenn waaye ñoom génne nañ ñu bari ñu sànni carte duñ doomi réew loolu nekkul évidence non waaye am na tur yoo xam dañ ne hmm. am na ñoo xam ne dañ am Euh, voter card te fekk voter registration process bi was close loolu bu fekkee am na loolu loolu loolu daal si loolu baaxul. loolu mënul sa nekk ah ñoom wax nañ ko génne nañ ay tur xanaa ah. gis loolu. mënul sa nekk ñun ñëpp. waaw waaw léegi dama bëgg naa ko ci gannaaw. ok xaaral ma leeral ñu bari dinañ ko gëm. Hmm. ñun ñëpp ci technologie lañ jànga wala ñu bari si ñun ci loolu la ñoo liggéey. Hmm. gis nga database system buy isi buy def registration. Hmm. dañu ko won naka la moo doxee bala moo tàmbali maa ngi woon IEC kenn du ma ko wax mm. gis naa système bi mm. every voter card voters card boo xool di mm. serial numbering dafa wone ban bés ban waxtu ak fan lañ la ko joxe soo tur rek du doy génneel voters card boobu nga génnee fiñ ko joxe ban déet la ak yëpp luy wone ne gannaaw bu mu la ñun ñëpp xam nañ kañ la close soo su fekkee dafa close already muy joxe. den déet bi dina ko génne su fekkee dafa joxe woon fekk ñoom starta guñ tàmbaleegul déet bi dina ko joxe xam nga nañ bañ di fuuf xeli nit ñi moo tax ma ne la ci média la ñoo liggéey loolu lañ jànga jàngale ko te betee mooñ ci liggéey loolu soo ko yóbboo ci code without proof fi tur kese si mbalit la jëm ku nekk mun naa binda tur tur buñ buñ binda noonu yoo xam nga xamuloo man xam naa aw ma tur tur la rek loolu doyut pour nga sukkandeku di wane ne élection di jaarut yoon moo tax ma ne buñ nax nit ñi buñ fuuf xeli nit ñi ñoom fi ñoo tibee man mi jàngut loo su ma demoon ci code boobu pour defend ko in few minutes ma saani ko ci biti ngir évidence yu ma joxe soo demee loolu nga ko faa fekk ñun xam nañ nan mooy database loolu moom kenn kenn mënu ci dëgg moo tax ma bëggoon a leeral yow yow nga jàpp kon UDP UDP uh, la sax. Uh, tur hmm? tur kese du évidence. du évidence delluwaat ci. mun nañ laa jot tur yoo xam ne sax ci dëkk bi. su dee si système bi ñu fa soo fa duggee li ma la wax ni di nga ko gis soo fi génne woon sa voters card ma won la li ma la wax yëpp dafa am serial number yi even time buñ la ko jot time bi mu ngi fa ci voters